Eh, bu tabarkalla mag ñi baax nañu seen sabab ak seen liggéey li ma leen nettali ci njëlbeen gi seen barke fi nekk ak seen pexe ak seen ñaan waaw eh, bu loolu wéyee ñu feddali sant bi leen moo Mansour sant ak ñaan bi mu leen ñaanal tabarkàlla ñoo ko bokk ñun ñëpp kilifa la rek gu baatam rëy ci moom mu dénk ko njabootam njabootam respecté ko waaw sayidallah moo waralkat kat daje bi waaw moo waral daje bi ndax masul xeeb benn njabootam waaw waykat yi ñi ci neex baat ak ñi ci naqari baat ku ko masaan di woyal mu déglu ko borom xaftaan yu guddi ak borom xaftaan yu garmale woon waaw borom poche yu fees yeeg borom poche yu vidde yi la yemale woon waaw waaw góor gi amal ba daf ko daan woyal cër yu ceeb bu dee woy baat bi dafa naqadi dafa mel ni gëléem goo woy waaw ndax baat bu naqadi rek waaw daf ko woyal qad allahu qaadi shawqi walbayni walwasli مديحي أبا العباس أحمد ذا الفضل بشيخ الحاج مالك waaw daf ko ko woyal nag woyu ajoor bi qad allahu lay wax du ci naaral dar waaw وواخد الله خاد السوق والبين والوسل مديه أبا العباس أحمد سلفدلي نديكو سين مو ينجل بوبم با ديكو ديكلو رك أمد بدي دانغر دانغر قد الله قد السوق والبين والوسل مديه أبا العباس أحمد سلفدلي آه. دوائي على دائي سيارة روضه وإن لم أنا الفداء في السيد والعرض واو تروتي دنكو جسمو مو ينجل بابام بابا كيسوف واو نجر خمني سين بلال عند الله الشين واو ndax xam ni siinu bilaalin inda allahi siin ah du sol dàll sax moom góor gi amat ku yéeme la nitu yàlla piir waaw cëram ci yàlla néew na ku ko waaw waaw قضى الله قاضي الشوق والبين والوصل مديح يا ابا العباس يا احمد ذا دواء على داء زياره روضي وين ما نلفد في ذهن فلاد يراجت شطرا بمجر الكباب ممشاخ الخليفة من شاق مجر الكباب هو البرزخ المكتوم والختم للكل أقوم أتل البابا كم سكوتك بكوية دنع دفني وعجل نيوي واو xawma fu ko cheikh defoon xawma fu ko cheikh defoon wal barzakhul maktum wal barzakhul maktum wal khatm lil kulli bobu mo don mo don façon am bobu mo don moddam léppam rek aljana la ba jeex wa yàlla ko defal léeg buñ ne dafa man daagu góor gi moo man daagu mu ne ak ah, xamuñu la xew sama tànk yi sedd bee ko yàq waaw waaw loo wax rek mu layil ko buñ ne dafa man daagu ski moo mën a daagu ndaak li ndaak li mu ne walaay tànk yu bon rek la ah, kenn mësul gis loolu kenn mësu ko gis jaboote njabootam nag ci biir loolu tabarkalla kenn ku nekk ak sa engagement ci kanamam gannaawam nga ni daa ko respecté e ñile cërëm la ñi ko mënul am ci seen njaboot dañoo gas ñaari bàmmeel benn bàmmeel ba ñu dugal leen ci benn bàmmeel ba ci des ñu yurite seen secret moo tax boo demee Maroc ñu naan diw mi ci borom ñaari bàmmeel yi waaw kooku déggal njabootam déggaluñu ko ñu suul ko fii suul sa këram fii muy ñaari bàmmeel doo xam ban la ci mu dénk leen ngeen dégg dénk bi jëlanteeg moom engagement mottalil ko engagement bi kile tawfiq la wa ma tawfiqiya illa billah ndey bu neexul yàlla du dox waaw ba tax na ndu ci biir jamono dinañu am chance wu wuyu ji seen borom ba mu am at yu day na yi mu am moom ci suuf te ñu fonk la nañu la fonke woon ba nga dund mu ni ma ndax mën na am ci biir jamono ma ni ko nag lan moo xewoon ci jamono Maodo ak lan moo xew ci biir jamono ma ni ko euh, li ngeen di wax mun yi nga xam ni ñoog taarix ànd ngeen di ko wax conjoncture yàlla am na loo xam ni su la ko bëggee may def laa dajaleeg jamono ba gën yomb jamono bi Cheikh El Hadj Malick fii ci Sénégal dajeeg dikku tubaab yeeg tas tasu yenn pénc yi pénc ya tas ak gëlëmu yenn xel yi mooy àgg ci soxla fu ñu wékk seen baat ndax ku gëlëm la ngay jëkk bëgg mooy wut foo wékk sa baat yàlla dajale leen ak moom ñu wékk seen baat ci moom ma ni dafay soxla nga wax ma lu mu daan def li mu daan def moo di dina gor tool taalibe ya nekk ca di def seen tarbiya di jàng seen àlluwa dana tabax jàkka taalibe yi nekk ca di jàmm seen borom di jàng seen àlluwa dina nekk ci néegam defal nit ñi tarbiya jàngal leen seen àlluwa ma ni ko ci boobu sabab la yàlla defe ci xolu ña ko xam wër ko xër gi ñu xër ci moom euh, wante dafa fekkoon nit ñi soxla ko kooku xaqiqa la ci jamonoom moo di xaqiqa jamonoom moo di nit ñi dañu ko soxla mënuñu ko ñàkk soo demee ba beneen jamono ñëw indi xaqiqa bu nga xam ni kilifa nag mooy soxla nit ñi du leen mën a ñàkk danga ko xàmme mu ni ko bu jëkk quartier boo dem ña fay njaboot balaa seen xel a dal wala ñu ñemee dem ubbi ci seen boutique wala ñu ñemee dem marché jaay wala ñu dem ca atelier ba wala ñu liggéey balaa seen xel a dal dañuy xëy ziyaare sëriñ bi wala ñu nuyu chef de quartier bi dana nekk xel mu dal pour ñoom bëccëg bi yépp kooku xaqiqa la woon te seen jamono tey nag chef de quartier bu ci xëy te visité wuloon njaboot yi ci quartier bi yaa ngi xalaat ñu folli la ci ngoon kooku beneen xaqiqa la xamuloon ni bokkul bokkul looloo sabab nag ñu jëkk ña nopp lu woon ñu mujj ñi son parce que bu jëkk dañ la daan fekki ndax loolu la nit ñi soxla woon léegi yow yaa leen di fekki boo ko deful ñu bàyyi la xaqiqa yi bokkuñu boo dee bindal Maodo taarix du bokk ni ni ngaa bindalee waa jamono bi taarix du benn du benn ku ci nekk ak sa xaqiqa bu jëkk boo xasee nuyu chef de quartier bi sa xel dal ndax xam nga ni gis na njabootam nga dem marché nag di jaay ba ngoon ñu ni la nga kër diwa nga ni nuyu naa ko ca yor yor gàllaaj la ci yow ba léegi moom bu xëyee te nuyuwu la ba ngoon mi ngi xalaat ni yaa ngi ci leneen waaw te mën na ñàkk quartier léegi du taxaw moo tax bu xëyee moom it jël dàllam kenn ko ne mu ne salaamaaleykum na ngeen yendoo waaw na xalaatkat yi àgg nañu ci bu jëkk mbooloo moo daan dundal nit bu njëkk mbooloo moo daan dundal nit te ci biir mbooloo mi kenn ku ne waruloo ràññi sa bopp ci biir loolu ci la yëpp di baax ñu dem a dem ba ci jamono bu nga xam ni balaa mbooloo am kenn ku ne defar sa bopp ba noppi seetal loolu bu jëkk ëttu kilifa boo dem njaboot yépp ca ëtt ba lañu fanaan lu tax booba mbooloo moo di dundal nit الحقائق يركل أك مداولة الأيام يلك ها تحليجي سادوم بلا جمي خملو نك خملو مبقب لمبان غنان خالي نيو دو تيك نبدو جمي ها ci seen jamono lañu nekk yow kay yaa ها؟ loxo xamatul lu xew te it ñu ngi wàllu googu dundal sa bopp sédd sa bopp cër pour mën a bokk ci mbooloo mi ndax bu dee xaqiqa ci bi jamono l'islam nangu na ko l'islam nangu na ko démb wala taziru waziratun wizra uxra kooku moom ñi ko l'islam nangoo sax dafa ëpp bu sañoon balaa kenn dem ci mbooloo jag jag ci jikko jag ci xàmme jag ci lépp ba moo tax gis nga li ñoo wax ci réew mi di wax géwël géwël eh, ñu di ko topp di wax luy cosaanam di cosaanam ku nekk wax lim ci xam eh, wax naa leen ni ba ba moo sotti eh, benn famille la bu nga xam ni ñenn ñi am nañu xel ñenn ñi amuñu xel famille boo dem ñii am xel ñii amuñu xel nag lu yàgg-yàgg ñu am xel daañu nangu tëdd ci suuf ña ca des war leen pour jàmm am ca famille ma ni leen fu géwél mën a jóge gën a yeewu ñañu bokkal rekk la du du leneen kooku famille boo dem famille boo gën a yeewu ëpp fa diplomatie dinañu d'accord ci ña ca des war leen ndax ñu mën a jàllandoo wàllu diplomatie la famille boo dem dañu neen diw kët boo dee wax ak moom waxal ak moom nangam dox su ko defee ñëpp déggoo ca dañu ko nëgg dañu ko raay dañu ko naax pour mën ko jariñoo rek yaa di géwélam léegi parce que yaa ko pexeel yaa ko ëpp siyaasa foog nga nekk géwélam waaw ci suñu penc la mag ña ko tëral xikma la ah xikma pour mën a def lan taxqiqul waxda bayn al pour que unité unité mën am ci penc ni loola tax ñu def ko mag ñi lu nekk jéem nañ ko ci ah, pour bañ ay am dem nañ cee dema dema dema dema dem ba eh, xam nañu ni ki nga bokkal ndey ki nga bokkal baay ki di sa doomu najaay ki di sa doomu bàjjan yooyu yëpp mag ñi tëral nañ ko xam ni ay du fa mën a ñàkk waaw ñu ni ki nga bokkal ndey ñu ne ah meen la boo ko laalee yàqu ki nga bokkal baay ñu ne ah sidit la boo ko laalee yàqu sa doomu na jaay ñu ne ah sa sa sa sa sa sa sa sa eh, sang la boo ko laalee yàqu sa doomu bàjjen ñu ne ah sa jaam la boo ko laalee yàqu nga ni Jóob laa sant mu ni man Njaay laa sant ñu ne ah sakkal la boo ko laalee yàqu mais li ñu man yëpp def nañu ko nun noo leen déggul noo leen déggul pour lan taxqiqul waxdati rek bayna al afraad moo tax ma ni la aada dana baaxal lëf te baaxul ah dana bonal lëf te baax na nit ñooy dem ba lu ne xamat du ñu xam lana taxoon ñu def ko loolu moo tax nag boo xasee defar sa bopp nag dootoo am sant kenn juratu la baaxal a jur jeex na foofu nag taqdi ala al abaiya waaw li ñu tuddee al abaiya sama bàyyi fi nekkoon nangam da nga ko daldi rey mu jeex sa bàyyi dootoo ko tudd sa bopp nga tudd parce que toppatoo nga sa bopp ba mu baax loo di tuddati sa bàyyi jaru ko jaru ko ah? waaw waaw jaru ko kooku nag jaru ko ndax itam la budda lil insan min an yaqdiya ala al abaiya awalaw kana abaahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun yàlla ne lu ngeen ma tudde seen bàyyi démb maa xamoon seen bàyyi ci penc bi seen bàyyi dof la woon yàlla ko wax ci alquran yow yow nag xamuloo ko woon xamuloo ni ndekke sa baay dafa doxoon xamuloo ko waaw mais yàlla mi fekke démb mi ngi laa wax ni du woon nit waaw ah moo tax la budda lil insani min an yaqdiya ala al abaiya ولا بد له من ان يقضي على الاساطير ndax itam aada baaxul xam nga lu ñu tuddee ak taxasoo ak taxasoo al is al ustuqrat yi eh, gis nga ci famille yu mag yi nga ko xamee <coughs> eh, <coughs> eh, ci famille yu mag yi lu naqadi la ndax itam daan dégg ci jigéen ji mu di ma wax Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane nit nitay garabam ma ne ko nit nitay posonam mais bu ci nekk waxin la lu ci nekk waxin bu ne nit ñi garabam du charte kooku mënul ñàkk wante suñu la ko dee wax nga topp ko ci wàllu aada noonu le ci wàllu famille yu mag yi dangaa dema dema dem ba xottu nit nga mujj nekk benn dogg dootul nekk ci yow benn gogg dootul nekk ci yow benn ful dootul nekk ci yow lu nit ñi bëgg rek ngay bëgg waaw te kooku xaram na mutlaqan kooku xaram na mutlaqan warul mën nekk wala bokk nga dem ca dema dema dem ba li ñuy tudde ñoom xukamaa ul garb ak taxassoo al aristocratie yi eh, Eh, mm-hmm. ñi seeni waajur góorgóorlu woon te ñoom góor góorluwuñu parce que amuñu jomam amuñu fitam amuñu xàmmeem la ca mujj mooy ku ñu gis dogale la jox la ñaari loxo pour nga ne eh, waaye moo am teggin waaye moo baax kooku du mbaax ñàkk si cër kooku du mbaax ñàkk si cër la cee dem dem ba danga mujj ñàkk fayda du noonu te kooku nag ban njariñ moo ci nekk ah ndax itam ak réew ko lal sa mbaax googu nga woote ku ne nga jox ko ñaari loxo ak réew ko lal ndax yaa ngi bëgg ñu teg la sa place su wéyjur wala ñu tagg la te laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi mithqaalu darratin min al kibr te yow li nga def ak naxwatul jahiliya moo ko lal ci famille yu mag yi nga ko su ñu demee ba pàq ba leen faloon diwatuñu ko ba pàq ba dee yooyu lañ ko watte waaw su ko defee it nga dal di yëg ni ñañuy àndalit parce que euh, la nga donn dafa am nu ñu ko defe euh, euh, jamaa boo gis fokk mu ormal diine jëmu bokk fokk mu ormaal li passé ñu ni moo di cosaanam waaw wante nag gis nga ormaal yombul ormaal yombul ndax yàlla xereñam moo àgg ci doomu aadama yàlla dafa wut ay buum yu mu ko yeewe yeew ko ci tabiya bi yeew ko fu nekk buum yooya su dogee lu mu defati du ci yëg xorom sa nga xam ni ña ko daan def daañu ko ci yëg seetal loolu ñu fi nekkoon di def lenn xorom nekk ca mu fees xolu nit ñi yaakaar yi yokku ñëpp dal mu neex ñooña nekkatuñu fi ñeneen di def la même chose te booba xoram du ci ne lëf la lëf la xamuloo ni ay buuma dog moo tax buñ la nee ormalal li passé danga xam naka nga koy ormale soo ko xamul rek nga reyu leen fekk du neex gis nga lu ko gën a am solo ci wàllu ilmu nafs wala ci wàllu al ijtimaaya amul ah te dund ak diine nag ñoo ànd maanaam gis naa ci gannaaw ni nii dañoo dekkal fanal fanal dafa daan am mu di ay ndaw ñu di ko taal su dee guddi nga topp ci di rëjëx rëjëx ñu bàyyi ko ba ñëpp fàtte ko ñu ni dañu ko dekkal bi ñu ko dekkal ña ko daan def bàyyi woon ko léegi di mag solu col gañu soloon ca yooya jamono ànd ca di rëjëx rëjëxi te bokkul ak rëjëx rëjëxi xale yi fokk nga seet ñoom ndax seen yëgg dëgg la wala tristesse moo nekk ci ñoom waaw parce que lu ñuy jàng la rek bul defe nit dana sol palmaanam wala cawaleem ànd ci fanal di woggantiku nga defe ni bég na mu ci daan bégi ba mu xewee 34 ak 35 seet lu ko ba xam lu nekk ci moom ba xam bég na ci boppam walla am na leneen lu xelam xalaat moo tax lu nekk bul defee ni rek noonu lay tëddee dem rek yàlla ëpp na loolu nit yëgam ëpp na loolu ah fa ko yàlla di yeew ba muy yëg buum gu dagg am lu changé ci gis-gisam ak ci nekkinam mënul ñàkk kooku mënul ñàkk kooku mënul ñàkk kooku mënul ñàkk moo tax eh, ay yëf la yu xam ni jàng ci kayit kese sax du ko maye leneen a ko maye ومن لم يكن له اتصال حقيقي بنفسه فكيف يحاول الاتصال بغيره koo xam ni ba nga juddoo ba léegi amaguloo contact ak sa bopp naka ngaa amee contact ak keneen yow gisaguloo sa bopp waxtaanagu sa bopp réer na la bu yàgg naka ngaa gise keneen kooku mënul nekk ba tax na doomu adama du ñàkk sikk du ñàkk sikk du ñàkk wàññeeku wante nag itam namm nammam ak yéeneem rëy na ci yàlla ومن لم يكن له اتصال حقيقي بنفسه فكيف يحاول الاتصال بغيره koo xam ni ba nga juddoo ba léegi amaguloo contact ak sa bopp naka ngaa amee contact ak keneen yow gisaguloo sa bopp waxtaanagu sa bopp réer ni la bu yàgg naka ngaa gisee keneen kooku mënul nekk ba tax na doomu aadama du ñàkk sikk du ñàkk sikk du wante nag itam nammam ak yéeneem réy na ci yàlla waaw euh, waxul aadama doomu wax summa tabaahu rabbuhu fa taaba alayhi wa hada lu mu digal doomu aadama la yàlla nee na bi ma digal aadama fekkul mu ñor ñàkk ñor gaa ko defloo musiba wante ñàkk ñor googu la it ci la dëgg ba baal ko ak sama mbaaxu bopp loolu moo lay won ni yow mi tolloog jamono ñor bala laa baal fokk ci sa jikko la ko teg ndax war nga ñor yow adama boppam rek la gis gisul benn événement lu dul bopp yow événement yi ci àdduna yëpp gis nga ko nga xam ni euh, yen bu mu la yen la la bu mu la yen ndax euh, ko waxee doon ko wax léegi ci famille yu mag yi nga xam ne ña ña ko samp ñoo indi mbaax ga ñoo indi yitte waaye dem na dañu di interpréter yëf ya ni ñu ko warul interpréter ba kenn ku nekk mujj nekk espèce su eh, ku ñàkk fayda espèce ku ñàkk xorom te yëpp interpréter lëf nu mu nekkul rek la ndax itam dafa am lu cheikh alhaj malik waxoon radiallahu taala anhu dama daje ak benn mbokk ñëw sa kër fekkuma la fa mais fekk naa fa sa bëkk ne kooku ci lii ci lii daaneel famille yu mag yi ci la bokk bëkk ne mu ne ma ñëw sa kër fekkuma la fa sa bëkk ne laa de mauvaise conscience sama xel dala di wu ndax ku def sa bopp bëkk nekk yaa ko def wante man defuma la ko man la ko rek la preuve la preuve ku ne ak yow ba bëgg naa la woon ni Babacar moo di sa baay boo santee Njaay moo di sa baay boo santee Kase moo di sa baay boo deful ci sa bopp loolu loolu duma mën d'accord ak yow duma mën d'accord ak yow ndax itam loolu moo mën a nekk tiit mag ñi li ñu lay jàngal boo ko appliqué wul lu mu laaj jëriñ dama dégg ni Cheikh El caabeem moo doon bëkk néegam man temps bu ma soxlaa sama bopp sama caabi laay jël royuma ko te mënuma ko mais sama noflaay la sama noflaay la ma ni woon noflaay daf ma ni na nga génn nga reposé ma ne ko mais fii man maa fi am fu ma reposé man fi ma mais kenn du ma déranger ni ma wante e naflaay nekkul ci nga tëju ci sa biir nekk sa xel di xalaat ñi ci biti dama kooku du naflaay xam nga ni sañ nga tëj sa néeg nekk ci biir mais nit ñi ah, ci kaw aada sañ nañu di xooloo ci diggu ëtt e bi pour wan la ni xam naa ni yaa ngi ci biir waaw ndax kooku naf laa yaa ngi ci parce que léeg nga bëgg a buur pour jóg xeexi ci bit ah kooku nof laay nekkatu ci ah loolu kenn mosu ko gis ana cheikh cheikh na ko fi nga ni déedéet mi ngi ci biir séen naa ko loolu loo ci mën ah danaa bind na ma ci lettre bu day nag ñay jox ma ci leçon bu day nag ñay ni ma yonent bi daawul daawul xàjjale nit ñi ñëpp la daan recevoir te dafa mel ni eh, ku ku ku pocham feesul rek doo ko recevoir xëy na bind na ma lettre wax ma lool indi aaya ba indi aaya ba ko ma jàngal ko xale yi ba mu jeex ñu toog waxtaan jàngal leen ko man leen dama leen di laaj seen digganteeg yàlla daaw bare ndax recevoir naa fi ku poche ku poche am fees digganteeg yàlla waxtaan rek ma leen gis ngeen romb na fa beneen aaya bu ko gën a jegeñ la boobu neexu ko bilee ko neex man leen am na aaya bu ko bu ko jiitu boobu la waroon wax wa in qiila lakum urji'u farji'u wa azka lakum ah yàlla nee boo ñëwee ci buntu kër nit ñu ni la dellul ba beneen yoon bu ca teg baat dellul rek bul ñàkkal sa bopp fayda amul leneen noonu bind na ni la yonent bi daaw ko defe noonu est moom mooy jibril est-ce que man maay yonent bi ci bare dangaa ree rek xam ni noonu la baax na wàññiwul dara waaw eh, mu ni nag eh, gàmmu jigéen ñi la eh, te ñu ngee <coughs> su ko defee nga xam ni bopp diggante ruux ak yaram eh, am na relation yu ci nekk relation yoo xam ni bu ñu ko bàyyee mu feebar mbaa mu doyadi rek ruux ak yaram nañu war a ànde dootul ma nekk te nekkatul équilibre bi war ci dund nit ki dootul man nekk te it kooku sayid ahmed tijani ashariful fatimi wax na ci lu garaaw lu rëy parce que cheikh daf daan jékki-jékki ñaari baaraamam yi le taf ko ci noppam ba dootul dégg dara déglu xolam bi mu naan teg teg mu xam mukallaf moo jën ku mu bëreel daan la tellu ci diggu dooleem nga wut benn tabala ak tiggukaayu tabala teg ko ci buntu kër gi mu ame bu nit ñi añ du añ bu ñuy reer du reer bu ñuy eh, nelaw du nelaw bu ñuy werante du werante mi ngi neppi rek amee tëggukaay bi rek ci tabara bi rek dik dik dik dik dik ilal abad